frigo ngay am foofu ah, la sama gars yi gaa leen ñu dem dindi feeloo si vous n'avez jamais été euh, là dans ce coin du Sénégal paradisiaque allez embarquer avec euh, Papa Ndaw et il nous amène papa Top, c'est parti. allez merci Pape Sidi donc euh, ñu joxe benn présentation un peu rek euh, Ndindi Ferlo mu ngi euh, mu ngi situé dans le département bon non mu ngi bokk si benn si département wu Kédougou yi. Mhm. donc jege aussi euh, aussi ak ak Mali. donc comme ni nga ko waxee léegi diggante mook Ndakaaru toll ci 900 kilomètres ak lu teg. 916 mhm. donc waaw mais ci fàttali village ki commune bi di Ndindi Ferlo population mu ngi toll si dix mille six cent soixante deux yi ñu ngi ñu ngi toll si cinq mille trois cent vingt six donc euh, góor ñi. indi fële mille habitants ñoo fa dëkk. dix mille six cent mhm. euh, ñu ngi toll si cinq mille trois cent vingt six jigéen ñi cinq mille trois cent trente six superficie mu ngi toll si deux cent cinquante deux kilomètres carrés population am jeune avec cinquante pour cent. comme la absolument donc euh, dëkk bi mu ngi nekk. euh, juste après deux kilomètres après Kédougou mais. Pape euh, dans Kédougou si Kédougou. c'est après Kédougou. après Kédougou parce que après Kédougou on rentre dans le Mali ah. waaw parce que après Mali y a le Massina. non da ko da ko féetee l'est. da ko féetee l'est après Kédougou da ko féetee da ko féetee l'est quoi. mooy Kédougou tu parles de commune. waay waaw. waaw donc boo jëlee Ndindi Ferlo douze villages moo ko wër mais ñi nga village yi nga xamante ñoo gën a am ñoo gën a ñoo gën a ñoo gën a fës ci ci village mu ngi mu ngi mu ngi nekk village du Thiaré Kassé ak Tepper. ñoom ñoo gën a euh, euh, seq commune bii di euh, zone bi nga xamante ni mooy Ndindy Féllo pa mu nekk zone boo xamante ni ñi koy visité kenn xamul nu mu toll ay nasaraan ku ñu nekk fay ñëw donc du coup yoon bi wax dëgg yàlla war nañ ko mën a defar ndax yoon bu métti la foo xamante ni day am ay ay ay nit ñu fay ñëw di visité di fay seen xaalis di ñëw donc war nañ ko mën a yeesal ba nit ñu fay ñëw seen seen seen nekkin mën a mën a mën a mën a yem foofu noonu Pape wax nga ko léegi léegi dafa dëkk bu lii bu sedd la bu calme bu neex mais dem fa mooy problème bi donc sans plus tarder ñu seetaan élément bi ñëwaat ci plateau bi. de l'éducation on peut dire que c'est quand même satisfaisant dans la mesure où euh, en termes d'infrastructure euh, il y a eu la réalisation d'une vingtaine de salles de classe. Euh, au niveau de la commune, dont on peut citer entre autres deux salles de classe à Tiabé-Carré, quatre salles de classe à Pelel-Kendassa, deux salles de classe à Tchangé, deux salles de classe sur le plateau, c'est-à-dire à Dandé, et deux autres salles de classe à, à Djogoma. Il y a également des réalisations Certains écoles ont bénéficié, notamment l'école mère, c'est-à-dire l'école Manga Diampate Traoré, qui a bénéficié de la réalisation de deux salles de classe également. Euh, chaque année, euh, comme c'est une euh, politique de l'État, euh, l'État nous doit euh, ce qu'on appelle les fonds de dotation en médicament Donc chaque année, nous les aurons. même s'ils euh, arrivent tardivement. Moi, personnellement, lorsque je suis arrivé ici, j'ai une fois bénéficié de ces fonds, c'était euh, l'année dernière. Il y, a, il, y a, il y a, des manquements à toutes choses. Euh, nous, ici, actuellement, au poste de santé, nous devons avoir un logement pour la charge-femme qui est là derrière moi. Euh, depuis qu'on qu a érigé cette localité en poste de santé, il n'y a qu'un seul logement que nous partageons l'infirmier et la sage-femme. Donc euh, si nous pouvons euh, avoir, euh, de par ces réalisations, un logement pour la sage-femme. Et ensuite, euh, actuellement, à l'heure où je vous parle, le poste de santé ne dispose pas d'eau en quantité suffisante. Parce que nous avons un puits qui fonctionne à l'aide d'une pompe qui fait remonter l'eau. Actuellement, la pompe est en panne. Nous puisons directement sur le puits. Et aussi, nous avons Euh, nous faisons partie euh, des rares postes qui bénéficient euh, d'un appareil à échographie, mais ce qui nous pose problème, euh, c'est l'électricité au niveau de ce poste. Donc le poste doit être électrifié, électrifié. Euh, le poste ne doit être, doit être dépendant que de lui pour son éclairage. Nous fonctionnons par des batteries et des panneaux solaires. donc euh, à cette période d'hivernage, euh, l'électricité fait défaut dans ce poste de santé. un des partenaires permanent euh, depuis deux ans de la réserve naturelle communautaire de Digne des Fellows et de la commune de Digne des Fellows avec l'Institut d'Engoudal, d'autres partenaires, les eaux et forêts, l'ARD. Donc il y a tout un comité de pilotage qui agit en fait pour essayer d'aider la réserve naturelle communautaire et la commune à travers sa réserve à protéger ce qu'elle a, à le valoriser, à le faire connaître aussi. et euh, à mutualiser les actions. Donc c'est effectivement ce genre d'initiative où on est sur des combats similaires. On a différentes campagnes de reboisement, mais effectivement quand on se met les uns avec les autres et qu'on arrive à s'associer ensemble, les résultats ah, peuvent être meilleurs en fait. si oh. jamais vous posez la question, euh, où est-ce que je, je pourrais aller dans ce Sénégal pour visiter quelque chose que j'ai jamais vu vous pouvez simplement aller au niveau de Dindi Fellow. Mhm. parce que Dindi Fellow c'est extrêmement important. Mhm. Euh... papa. Mm. dafa am suite. daa am na suite. Aïcha am na suite am na suite Grégoire on peut regarder la suite directement après. d'accord on termine euh, et après on fait un commentaire. s'il y a besoin de faire un commentaire. on attend la suite. Mm -hmm. Alors on nous fait signe a un petit problème avec l'élément on va y revenir très prochainement. Mm. altine bi di ñëw incha ñu yeggali mm. ñu ngi jéggalu ah. parce a vraiment voulu que ça se termine. parce qu'on a tellement de choses qu'on voulait savoir sur Dindi Félo. absolument euh, merci d'avoir effectué le déplacement. donc euh, di gërëm aussi kañ fa fekk mu dalal ñu muy Kikalla Diallo. Kikalla Diallo waaw mooy mooy maire ba fa nekk moo fa nekk depuis 2009. macha mais franchement wax dëgg fa yàlla. dëkk ba amul leen loo xamante da nga fay dem sax jeunes yi di la ko di la ko waxal di genre comme sax kooku ñëwee léegi espagnol la mais dafay ñëw def partenaire am na jeunes yoo xamante la majeure partie ñii partenaire espagnol bi moo leen fay ak partenaire am ñee commune bi donc du coup dëkk ba estable la quoi en fait. Mhm. waaw ñoom bu ñu buñ demul ci tool yi ñu ngi ci guide touristique bi. wala ñu dem ci ci ci ci euh, micro jardinage bi mm-hmm. liggéey fa am bëri na te jeune fi nekk xaw ñoo takk noonu. waaw donc du coup waaw coin bu coin bu touristique la. macha allah di gërëm di gërëm ci Kalla Diallo ci gestion franchement ci mairie wax dëgg yàlla war nañ leen mën a gëstu. mais la Pape li nga kii Kalla Diallo euh, su état bu Sénégal lu woon tuuti. tuuti rek ñun adduna bi yëpp dinañ ñëw fii seet si ñu. parce boo ñëwee Sénégal ñu visité loolu la euh, Mamel. Mamel fii ci suñu. île euh, yi mhm. ba pare île Serpent île de Gorée lac Rose mhm. les euh, chutes de Dindéfélo nga pare jaar euh, Cap Skirring Kafountine Djembering Toubacouta bi rek Toubacouta la mangrove de mhm. l'île des îles du Saloum on a tellement de choses à vendre au monde que quand les gens ils ont pas naturellement ça ils vont le créer pour créer l'attraction Dubaï par exemple mm. ils n'ont pas ça et ils ont créé l'attraction ba ni ñi ñëw foofu noonu mais aujourd'hui on a nous des choses qui nous rattachent à la nature mm. mais on veut pas je sais pas si on veut pas mais on n'a pas encore mis les moyens qu'il faut pour que ñi dëkk ci dëkk bi sax mm. bëgg xam seen biir réew merci beaucoup Pape comme la xam nga boo ne il faut nga dem nga si dóol sa xel directement fa dem dafa am seen billet d'avion ngir dem foofu noonu mais rek Pape Sidi pour nga dem fa c'est tout un problème. lu mel noonu. yàgg nañ ko jàmbata ah. quand donc war nañ la mën jàppale donc ngir dëkk bi mën a am ay revenu ndax loolu tamit dëkk bi lay jëriñ rek. on se retrouve lundi prochain donc waaw maa ngi jégalu aussi ci élément bi eh, lim. Euh, bañ ah, on se retrouve à qui paraît dafa amul son. Euh, mais ñu on se retrouve euh, lundi prochain on va continuer boo xaw ma looy indi. Hmm? waaye dañ koy continuer. dañ koy continuer incha allah ah. lundi bii di ñëw ma yëgle wala nu bàyyi. non bàyyi non bàyyi.